damay as gor di ab jullit di yëngu ci wàllu commerce di yëngu ba mu yàgg jamono ñëw ma am ay jafe-jafe yu metti jafe-jafe yi mooy liggéey bu yàqu daanaka la nga mënoon lépp mënatoo ko ah ma dem ba yàgg nag jafe-jafe gën a nag sama xel yebal ma ne naa dem ca banque ba wut li ma lu ma renforcer woo pour mën a liggéey continuer njaboot gi ci fenn te benn loxo laa te mag laa yàlla nattoo ma ko àbb fa 6 million ñu ne ma 6 millions yi kat da nga ko war fay ci 12 mois weer bu dee yaa ngi war a fay 540 mille ma d'accord yàlla def ma jël 6 million yi di ci liggéey di ci liggéey fay naa ba fay juróom weer mu ne sama juróom-ñaari weer yëf yi gën a metti lool liggéey bi gën a taxaw gën a yàqu. faygat ma néew te doole lool dem ba mu yàgg sax fay fayga mëntuma ci dara ndax am problème mu dund jafe-jafe gën a yokk may xalaat fu ma war jaar ba fay may xalaat nu war def ba mën a fay njiit ñi moo ko seqal xam naa duñ ma baal dara duñ ma may dara te it luñ mën a am ci man dañ koy am ci man te fuñ toll nii léegi joxoon mooy sama këyitu kër laa leen joxoon kër gi it fi laa dëkk ma sama njaboot ma xam ne fuñ toll nii comme toll naa fii maa ngi ci danger sama kër itam mi ngi mi ci dansé te fu toll nii su ma yéexee rek dinaa ñàkk sama kër su ma yéexee it ah, danañ ma toroxal ba ah di bañ gàcce rek te amatuma solution amatuma pexe man nag naa ñëw expliquer la problème boobu ngeen dimbali ma ba nga xam ne seen kàddu mën naa mën naa mën naa fexe ba nga xam ne ñii déglu te def lu baax walla ñii déglu te def te yàlla tax. danañ mën a jàppale ba nga xam ne rek dinaa mën a fexe ba bu ñu jaar sama kii kër ba duñ ko jaay ndax fi mu nekk nii banque bi li ma ko defal yëpp matul 4 millions wala ci lay toll te banque xam nga ne moos même bu dee 1 million sax te fayoo ko sax mën naa jaay sa kër fa fu ñu toll nii amatuma benn pexe amatuma benn solution yaakaar fi ma fenn ku dul yàlla ak yéen ndax gis naa ngeen dimbali ay doomu aadama. di soxla faj doomu aadama ci seen kàddu ak seen man-man ah ma ne nag comme man seen auditeur la te dama leen di déglu saa su nekk ma gis ñu ne du fi xew ma ne ma nit naa indi bos foofu ci yéen ngeen jàppale ma su fekkee ne mën naa nekk su ma nekk itam ma xam ne ah yéen ngeen waaye xëy na mënu leen maanaam kër moo ëpp mi millions waaye banque boo ko xasee ameel moom la ko amee rek lay xool nu mu def a fay lay def. xam nga ne banque bi jaay sa kër ya ci aju yëpp day bay lam cay teg ak intérêt yi ngay fay ak dédommagement yi muy laaj ak yëpp daanaka bu ko tegee sa kaw kër rek mooy bu ñu ko jaayoon te da ngay ñàkk lépp ñàkk lépp te ñoom am nañ ay pexe yoo xam ni def ko du dara ci ñoom gannaaw ma dama caa néew doole nag te amu ci xam-xam nag ma néew ci doole lool te ma am intention fay sama yéene yëpp di fay fay kenn ma néew ci doole ma ne kon bañ faa yegg bala maa lii di dal naa jóg seeti ñu ma yaakaar dem ci ñu ma yaakaar kenn duñ toll li nag yaakaar bee toll ci menn mbokk ndax daanaka rek dafa toll kenn talatu tax ma xalaat la nag ci sama mbokk mii nga amoon problème ma gis nañ ca taxawee ak nañ ca nañ ca nañ ca taxawee nañ ca wasloo àq ndax àdduna moom lépp sutura la maa ngi ñaan yàlla itam li may def itam sutura laaj jublu damaa gis damaa xam itam yéen nit yi sutura ngeen. ndax sutura ngeen di dox ndax li ngeen xam yëpp ngeen ko wax ne léegi tàkk moo tax rek ma am ci yéen yaakaar am ci yéen wëllute yaakaar na rek su ma jaaree ci yéen rek mën na am ndimbal yàlla fii ma toll nii moom ku yàlla ñor ak ki def te yàlla tax rek laay wër maa ngi am ci yow yaakaar di yaakaar sa yaakaar di yaakaar seen yaakaar bëgg ngeen jàppale ma ba ma jotaat sama kii du kër maa ngi ko yaakaar baax a baax a baax maa ngi ñaan it ah bu ngeen ko naree def yàlla leen ci yàlla may ndam. ndax fu ñu nii man ah toll na diggante de wallaahi yàlla xam na loolu